والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أبناء المشايخ الكرام معالي الوزراء أصحاب السعادة السيد عبد الله جاه أعضاء اللجنتي التنظيم والتحكيم أمهات المدارس منظمات الإسلامية السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنه لشرف عظيم لي أن أحضر اليوم نيابة عن مولانا الخليفة الشيخ محمد ماحي إبراهيم يس هذا الحفل الرباني البهيج المنظم في هذا الشهر الكريم شهر رمضان قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هذا الحفل الذي ينظم الاتحاد الوطني لجمعيات المدارس القرآنية وشركة سنكو لتكريم الفائزين في مسابقة سنكو الوطنية للقرآن الكريم في دورتها السادسة إنها مناسبة يجب أن نتدبر فيها عظمة القرآن في هذا الشهر ذلك القرآن الذي وصفه الحق جل وعلا بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون wa qaala taala inna haada alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashiru almuminina alladina yacmaluuna alsalihati anna lahum ajran kabira wa yaqulu nabiyu sal allahu alayhi wa sallam alladi kaana qur'anan yamshi ala al ard fi xaqi xufaadi alqur'an wifqan lima warada fi alsaxihayn مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران أيها السادة يسرني أن أتوجه هنا بالتهنئة إلى جميع الحاضرين بمناسبة شهر رمضان شهر القرآن shahril qadri wa laylatil qadr raajiyan an yataqabbal allahu minna jamian siyaamana wa qiyaamana wa infaaqana wa duaana summa innahu la yasurruni bismil xalifa cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass an uqaddima shukra wa tahni'a lil qaa'imina ala jaa'izati Senico al wataniya li xifdi al qur'aan al kariim هذه الجائزة هذه الجائزة التي وصلت اليوم إلى دورتها السادسة كما يطيب لي أن أشكر الجميع على تنظيم هذا الحفل تحت سامي إشراف شيخ الإسلام شيخ إبراهيم يس رضي الله عنه الذي كان القرآن شغله وكان ذكر الحكيم كرامته wa asaasa madrasatihi wa ruuxa nahji fa li cheikh ibrahim maa dikri alxakim taarixun tawil faqad fassarahu waliduhu cheikh alxaaj abdallah Niass radiallahu anhu maratin idda kama fassarahu huwa nafsuhu iddata marat bilarabiyati wa bilulufiya wa axraja alkathira min kunuuzihi wa asraarihi wa haa huwa alxalifatu almuazam المفسر الشيخ محمد الماحي إبراهيم نياس يواصل تلك المسيرة منذ عدة سنوات بتفسيره للقرآن العظيم في شهر رمضان من كل عام إن اختيار الشيخ إبراهيم راعيا لهذا الحفل في محله فقد كان القرآن حياة الشيخ إبراهيم رضي الله عنه ومركز اهتمامه الأول إذ فتح له المدارس وجعل حفظه أول خطوة يخطوها الطفل المسلم لقد وجه الشيخ إبراهيم لأحبابه وتلامذته نداءه المشهور الذي يقول فيه أحبتي فلترسلوا الولدان كي يقرأوا واقتصب القرآن ويقول الشيخ رضي الله عنه متوسلا للمولى عز وجل فلتجعل حفظ كتابك الكريم كرامتي إلى لقائك العظيم شوقي وحبي فيك لا يشفي سوى حلولي وارتحالي فيه ويشهد العلامة الموريتاني الشيخ محمد فال ابن باه العلوي للشيخ إبراهيم بالعناية القصوى بالقرآن الكريم فيقول في قصيدته المشهورة التي يتحدث فيها عن بعض خصال الشيخ يا أيا قارئ القرآن أيا قارئ القرآن أيا قارئ القرآن متقن فنه وقارئه عشرا وقارئه سبعا ويقول اللابة الموريتاني الشيخان ابن الطلبة ابن الشيخ محمد الحافظ مادحا الشيخ إبراهيم بما في الكتب قد تأتي وتأتي بما لم يأتي قط به كتابه لقد نقل تفسير الشيخ إبراهيم يس للقرآن من الأشرطة التي سجل فيها بصوته إلى الأوراق وتم جمعه وتم طباعته في مجلدات على يد أحد كبار تلامذته هو العلامة الموريتاني الشيخ محمد ولد الشيخ عبد الله الجيجبي وسأقوم وسأقدم لراعي الجائزة سيد عبد الله جاه wa sadiqihi sayid Moustapha Ndiaye baada qalil sa uqaddimu lahu sa uqaddimu lahum nusaxan matbua min hada tafsir alladi xaqaqa fihi cheikh bi fadlillahi bayaanu alquran baada an xaqaqa jamcuhu wa qur'aanuhu wa baada an qara'ahu alxaq wattabaca annabiyu sallallahu alayhi wa sallam qur'aanahu qaala tacaala laa tuxarrik bihi lisaanaka litacjala bihi inna alayna jam'ahu wa qur'aanahu fa idaa qara'naahu fattabi' qur'aanahu thumma inna alayna bayaanahu lan anhiya kalimatii qabla an ashkura abnaa'anaa وبناتنا من حملة القرآن الذين اجتهدوا في حفظ كتاب الله وبذلوا في هذا الشهر الكريم أقصى جهودهم للفوز بالجائزة والشكر مع التهنئة موصولان لأساتذتهم ومعلميهم ولذويهم ولمن شجعهم على ذلك مرة أخرى أشكركم وأرحب بجميع الحاضرين مهنئا بمن فازوا في هذه المسابقة التي نتمنى لها النجاح والاستمرار راجيا لراعيها التوفيق والتيسير وتحقيق المطالب وأسأل الله تعالى في هذا الشهر الكريم أن يحفظ السنغال وطننا الغالي وأن يبسط عليه وعلى شعبه أجواء الأمن والأمان والأخوة والتكافل وأن يحقق له الرقي والتقدم والازدهار والله تعالى يتولى الجميع فهو يتولى الصالحين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gannaaw bu ma nuyoo képp ku nekk ci turam ak ci jëmmam damay jiital ci nuyoo boobu noonu doomu sëriñ si nga xam ne jóge nañ ci barab yu fasantikoo ci Sénégal pour taaral jotaay bi su ma leen nuyoo nuyu ñi nga xam ne ñoo fi teewal nguur gi muy ministre yi di ci tudd sëriñ Mbaye Thiam su ma leen nuyoo nuyu ambassadeurs yi su ma leen nuyoo nuyu ñi yëngatu ci wàll lislaam nuyu sëriñ daara yi nuyu xale yi nuyu invité yi nuyu képp ko xam ne mi ngi teew ci jotaay bi di leen ndokkeel di ndokkeel sama bopp ci bés bu barke bi di wax ne teew nañu tey ànd ak délégation bi ngeen dégg ci njiital suñu mag cheikh sayid mohamad al arabi ibni cheikh mohamad zeynab ibni cheikh alhaj abdallah ak mbooleem ñi mu àndal représenté fi alxalifa cheikh mohamad al maahi ibni cheikh ibrahim Niass mu yebal ñu pour ñu ñëw gërëmal ko cheikh abdallah Dia ci cër bii nga xam ne cëral na ko cheikh lislaam cheikh Ibrahim Niass ci alquran te cheikh lislaam cheikh Ibrahim Niass amul cër bu ko gënal cëru alquran ndax dafa ñaanoon yàlla nekkoon ko ma defal sama karaama muy alquran ndax bëgg naa la bëgg koo xam ne dara du ko saafara lu dul su ma àggee minal jinnati wan naasi rek damay yéegaat ba ci alif laam miim commencé waat jëm min na jinnati wan naas loolu xadis bu daif foofu ñuy wax euh, alxaalul murtaxil foofu loolu lay junj foofu noonu kon cër boobu noonu bi ngeen ko cëralee bàyyi boobu ngeen ko cëralee mbooleem kilifa diine yi ci Sénégal waaye boobu ngeen ko cëralee mbooleem jullit ñi ci àddina bi yépp di wax ne événement bi am ci weeru koor wi événement bu màgg la ndax ci weer wi ci lañu wàcce alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne jàngkati alquran yi nga xam ne dañ koo wattu mokkal ko ñoom ak safaratul kiramul barara ñoom ñooy dëkk ñi nga xam ne ñi ngi koy jàng tem jafe ci ñoom mu ne danañ am ñaari yoon ñi ngi gërëm ñi organiser ñi ngi gërëm ñi participer ba bés bi taaru nii ñi ngi gërëm sëriñ daara yi nga xam ne ñoo def alquran ci dënn xale yii ñi ngi gërëm beneen yoon Abdallah Dia mi leen di teral ñiy góor góorgóorlu di wëttu alquran seen dënn ndax yàlla moo wax ci alquran ne ñun yàlla ñun ñoo wàcce alquran ñun yàlla ñun ñooy wattu alquran buñ ko émale woon ci livre yi rek nasaraan yi danañ ci def niñ def ci tawréet ak ci zabuur ak ci linjiil ndax danañ effacé dolli lu ci bokkutoon ba léegi ñu ngi gis ay kaamil yoo xam ne buñ jàngee ba ci biir dañuy gis ñu rocc ci lu ci bokkut wala ñu dugal ci lenn waaye wattu ko ci dënn góor ñi wattu ko ci dënn xale yi yu ndaw ay góor ak jigéen ba biñ fi toogee ba léegi ñu ngi jàng alquran comme niñ ko wàccee ci yonante bi sallallahu alayhi wa loolu képp ku ci participer képp ku ci dox war nañ laa ndokkeel ndokkeel gu am fum mu waaye amut fu mu yem dañu ma tënk ci ay minit ma bugg a loolu waaye buggoon naa gën a yaatal ci ngërmaane googu nga xam ne amal nañ la ko umma bi amal na la ko réew mi amal na la ko yow Cheikh Abdallah Dia tey nga fàttali ñu jigéen ju cher ci ñun di mag ci ñun di yaay ci ñun muy Cheikh a Mariam ci ñaari mbir yoo xam ne dégg naa ko fii tey muy xaadimul Qur'an dañoo nekk xale yu ndaw dégg ñu koy xale yu ndaw dégg ñu koy ooye xaadimatul Qur'an nga am liggéey boo amal bu am jëmm te liggéey gënu ko muy daaru Qur'an ñi nekkoon xale yu ndaw dégg ñi naan ñi ngi dem daaru Qur'an kon lu mel nii yàlla na ko yàlla bëril ci biir réew mi ndax ay xale yu am ay lijaasa ci alquran wala ci jàng bu mën di nekk nii rekk lañ leen mën a teralee mais mënuñ leen a teralee wëy mënuñ leen a teralee fecc loolu yàlla du ko gërëm ndax ki nga xam ne dafa war a tabax réew ëllëg dafa war a defar doomu aadama ëllëg ñi ne la yaa jël pay ci concours bi yaa jël pay ci examen bi yaa jël pay ci lii kooku buñ ko wëyloo woo rek buñ koy wëyloo ñu ngi nasaxal réew mim ne waaye ci lu mel nii ci lañ leen war a teral kon ñi ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaanal ñu ngi ñaan yàlla mu yokk la ñu ngi ñaan yàlla mu barkeel la ñu ngi may signalé waxtu wi waaye balaa ma ko balaa maa tëj am na tuuti lu ma bëgg a jottali ñi ñëwoon indi sa invitation ci xalifa bi ñoom ñoo ñu wax ne cër bii nga jox Cheikh Ibrahim jubluwoo ci dara lu dul xam ne teral alquran la waaye xalifa bi bi mu yégee ne yaa ngi tabax daaru quran bañ na lu dul ne dana yëkkati juróomi million def ko ci tabax boobu te avance la dana dolliwaat maa ngi bëgg ñi amee loolu ñu indi ko ñu jébbal ko Cheikh Abdallah Dia beneen bi mooy Cheikh Ibrahim Niass dafa firi alquran ay yoon baayam alaaji Abdoulaye Niass firi na ko lu mat téeméeri yoon waaye Cheikh Ibrahim Niass dafa firi alquran ay yoon ci arab ak ci olof mu nekkoon ci ay kaset kaset yooyu dafa am benn mauritanien boo xam ne baayam taalibe Cheikh Ibrahim ñas la mu judd ci loolu moom moo dajale kaset yooyu noonu lu jege ñeen fukki at di ko toxal di ko bind di ko toxal ba mat mu def ko ci ay téere ba mat juróom benn volume mi ngi fii ma bugg la cee jox cadeau benn jox ci sa xarit Moustapha Ndiaye cadeau benn mu am beneen mauritanien boo xam ne dafa am fukki at ak ay weer bind kaamil alquran ci loxoom ci riwayat naafa an qaaluun kaamil yooyu ma indi ci lu jege juróom-ñett fukki kaamil buggoon la cee jox bëggoon cee jox sa xarit Moustapha Ndiaye bëggoon cee jox sama mbokk yi nga xam ne fekk naa leen fii ñu jógee ci këri diine yi su ma tuddee Cheikh Mouhamadul Mansour doomi Cheikh Abdoul Aziz suñu waajur bu baax wa tudd Cheikh Mouhamad Mamour doomi Cheikh Mouhamadul Fadal mooy ne ñi des ñëpp tudd naa leen kaamil yooyu bugg naa kenn ku nekk ci ñoom am ci benn nusxa waaye réew mi lépp lu fi doomi Sénégal liggéey muy jëriñ ci xam-xam ak ci fànn gu mu war ne gu mën a ne bu ñuy teral war nañ cee njëkkee président de la république moo tax kaamil bii nga xam ne liggéey Cheikh Ibrahim la mauritanien boo xam ne boroom xam-xam la dajale ko xadis yi ci nekk mat six mille xadis yépp mu génn leen loolu buñ koy def ci joxe teranga président moo ci war a jiitu ndax ki taalif mbir mi nii doomu réewam la di jagleel ci kaamil yi sama ay soppe yoo xam ne xamante naa ak ñoom ak ñoo xam ne bëgg naa leen te xamuma leen ma ciy jiital alxaare cheikh Mouhamad El Hadi di ci teg cheikh Mouhamad Mansour mi ma tudd léegi di ci teg cheikh Mamour Mamour Mbacke mu cheikh Mouhamadou Fadel mi mu tudd léegi nii ak seeni mbokk di ci teg tamit président de la république ak rakkam Seyd Aliou sàll ak soxnaam Seyda Marème Faye Sall di ci teg ministre yi teew fii nii di ko teg ci loxo Serigne Mbay Serigne Mbay Thiam mu teg ko ci seen loxo waaye tamit ambassadeurs yi ak Serigne Mbuub suñu soppee ak Seyd Dan Fall ak suñu xarit Modou Fall kaamil yaa ngi fii xale yi 43 xale yi kenn ku nekk jagleen nañ la benn kaamil li ci des ñi ñu tudd nii ñu jox leen ko li ci des yéen xam ngeen ñan leen ko wa ñan lañ ko war a jox ngeen teg ko seen loxo waaye li am solo mooy kaamil bi bind loxo la te ki ko bind fukki at ak ay weer la toog di ko bind muy liggéey bu rafet liggéey bu màgg loolu xam naa ne soo amoon beneen cadeau buñ la mën a jox bu la gënal alxuraan dañuy dem uti ko ndax li nga def dafa màgg ci ñun waaye wóor nañu ne amoo benn cadeau boo xam ne moo la gënal alxuraan kon ñi ngi ñaan yàlla mu yàggal sa taxawaay ñi ngi ñaan yàlla mu barkeel la barkeel sa yëngatu barkeel sa dal barkeel mbooloo mii di liggéey ak yow barkeel eh, ittihaad jamiyat madaris alquraaniya ak sëriñ daara yi ak xale yi nga xam ne fa tabaarakallah wattu nañ alxuraan wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu